ñu ngi leen di sant bu baax ci sunu bisu Croix-Rouge bi muy loo xam ne lii Croix-Rouge lu aada woo di def la te fas yéene di ko jëme kanam yéen waa presse bi ñu sant leen bu baax te di leen xamal ne Croix-Rouge Sénégal yi yëpp de liggéeyal senegal ak mooy seen mooy seen wàll ah, département Mbacké nag xam naa tey ci tout sunu président national madame ba waxoon na ne sax dana fi teew waaye suñ boobam dafa dogal mu am dese moo ko fi tee ñëw waaye fonkoon na bis bi fonkeel goo xam ne moom ci boppam muy président national nee na woon dana fi teew moo woote na fi nee na mi ngi sant mbooloo mépp di sant préfet di sant kilifa diini yi fi teew di sant ñëpp ñoo xam ne teew nañ ci bis bi ndax euh, lii ko waaw di def man ci sama jëmi bopp en tant que président dama leen di sant ci seen taxawaay bi ndax kaay ñuy def nangam kaay ñuy def nangam mënees na ko waaye dindi leen seen alal dindi leen seen alal joxe ah wax dëgg yàlla loolu yombut te ñoom ñoom ñoo koy sàkku di ko defal seen bopp di dindi seen dindi alal joxe nag dafa métti seenu ñàq rek dafa dafa doyoon waaye dañuy dindi seen mboolem lu fi teew ñooy dindi seen alal di ko joxe néew néew ba bañ fexe bañ def lii ñu ngi jublu bu sooba yàlla ak yónnente bi weeru koor incha allahu noonu la ñuy amee pas-pas bi def ko toujours ci ñoom ñu ngi ci Croix-Rouge départementale bu Mbacké day yëngu ci activité yu bare bare activité bii nag da cee bari ay pàcc muy activité sociale moo tax tey suñu président ànd ak suñuy élément Croix-Rouge ak suñu présidente nationale xalaatan ne war nañoo yéeg wala fàttaliku ñi caabi féete ginnaaw ñooñu mooy ñi nekk ci kaso yi waaye comme ñoo ngi ci weeru jigéen ñu ne nan tànn ci ñooñu soxna ya fa nekk ndax itam seeni natta ngay soxla lan te itam ci nun lan bokk suñu njaboot lan suñuy tànta lan suñuy soxna lan suñuy sœur lan maanaam sax suñuy doom a nga fa comme bisu jigéen ñi la ñoom ñu xalaat ne nañ ko jagleel jigéen ñi nekk foofa mën noo dem ci euh, hôpitaux yi comme ni ñu ko daan ci maladie mën dem ci quartier yi pour les vulnérables mën dem ci daara yi ndax yëpp def nañ ko waaye nag ñii day ñoo xamante ne bii dañoo soxla ndimbal te dañ faa dem di waxtaan ak ñi leen yilif wala ñi fa nekk ak ñoom ñu wax ne dañuy soxla ndimbal yu demee nii te dañuy niiw ku leen cay jàppale ci fii ñu nekk ñun nag ñu ne Croix-Rouge dañuy jël initiation yoo xam ne chaque année su neexee suñu borom dinañ waa les familles. ñun de dañuy wax toujours dimbale leen nu ñu dimbale te lii nga fay gis ñu koy def ci weeru koor ci moment bi ci at mi yëpp li koy fi muy jógee mooy sunu président ak sunu xele yi nga xam ne ñoo ko cotisé kon nag ñoo ngi lancé appel autorité yëpp moo xam autorité administrative nga autorité locale autorité religieuse bonne volonté ku mu mën di doon koo xam te ni da ngaa bëgg jàppale si askan wi war ngaa jàppale kon croix rouge ngeen jàppale ndax croix loolu lañ ko xamee dimbale askan wi surtout wan askan askan wi tollu ay diggante muy vulnérable ñu soxla ndimbal ci waxtu wa ci fànn bépp nag looloo tax ñoo ngi lancé appel vraiment ñoo ñëpp ñu ñëw jàppale croix rouge mën a am sirif bopp mën a jàppale askan wi ci ay demukaay ci ab dëkkuwaay ak ci ay ndimbal yoo xam ne dañ koy jëbbal askan wi ko soxla ndax ñun noonu la comme dañuy jox ay doom ay soxna dafa baax ñu woo boroomi xam-xam ci diine yi ñu gëm diine bu mën ne doon waaye boroomi xam-xam ci sociologie sociologue waaye boroomi xam ci droit ngir ñu ñëw waxtaan ak askan wi surtout mbokki jigéen yi ci seen gëdd gëddaay jigéen xam nañ ne ci ñoom soo déggoo seen kàddu neen jigéen mooy ki nga xam te bi moom du mën a am ëllëg citoyen bu mat citoyen bu mat mooy koo xam ne am yar nekk ci comportement am nekk ci ab xam nekk ci dëkkuwaayam ki nga xam ne mooy tàggat doomu aadama boobu ba ëllëg mu mën a jëriñ ñu am réewam jëriñ askan mooy jigéen kon jigéen daal mooy sàmm bi njëkk ci doomu aadama moo tax ñu tànn seen boobu. di rafetluwaat encore rek euh, li nga xamee ne que moom la Croix-Rouge euh, def muy d'abord euh, li nga xamee ne que mooy don bi nga xamee ne que moom la def pour la mag surtout pour les femmes qui sont détenues au niveau de la mag mais it conférence bu am solo bi nga xamee ne que moom la def tey. Euh, jëm si euh, rôlu femme yi si euh, yaru xale yi et donc mu nekk lu am solo parce que li ñu gën a constaté mooy que société bi dafa dafa dafa commencé di changer nga xame ne que lii ñu jiital vraiment muy alal muy am-am mu ngi tas mën naa wax ne que suñu société bi ni mu meloon et li nga xamee ne que moo ko waroon a lal muy les valeurs muy jom fulla fayda muy fit muy yeneen kii donc yooyu yëpp dañu gis ne que mu ngi mu ngi dem yoonam et lii ko waral rek mooy jël rek xaalis alal pouvoir jiital ko bàyyi loolu. Euh, donc euh, conférence bi moom euh, occasion la woon pour rappeler suñu mbokku jigéen ñi lii nga xamee ne que mooy seen rôle wala seen importance si bii nga xamee ne moom la ñuy jouer si société yi pour mën a yar suñu. suñu doom yi suñu suñu suñu suñu citoyens yi pour mën a defaraat suñu citoyens ñu mën a jouer seen rôle ci communauté bi. Euh, vraiment euh, di wax ne que ñun Croix-Rouge dañuy montrer suñu disponibilité ak suñu ouverture pour gën ko accompagner parce que c'est vrai que accompagnement bi mu ñoo ngi koy def. Euh, jëlaat yeneen service pour pour gën a mën a renforcer accompagnement boobu loolu dinañ ko gën a jàppandal parce que li ñuy wax demande bi dafa force si mën naa wax ne que département bi parce que bu ñuy wax département de Mbacké euh, dañuy wax souvent que c'est le deuxième département en termes de de population parce que y la ville de Touba donc pour dire que bu amee soxla rek c'est sûr que soxla yooyu aussi euh, day gën a day day day mag par rapport ak population yi besoin yooyu ñun chance bi nga xamee ne que moom nañu am je l'ai pas dit en français mais chance bi nga xamee ne que moom nañu am dans le département de Mbacké bari na ay nit ya nga xamee ne que ay donateur nañ euh, et loolu euh, le service de l'action sociale am na si ñu bari ña nga xamee ne que dañ koy accompagner dans ces actions et que il faudrait que ñu ñu def mën naa wax ne que ce marketing là pour que nit ñi nga xamee ne que ñoom ñooy donateurs yi gën a mën a am confiance si structures yi telles que l'action sociale telle que la croix ak yooyu pour que ñoom ñu mën a organiser euh, ces actions sociales euh, au profit des des populations